jaa ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi suivre seen site internet mourides point info comme ni leen ko waxee woon nag yéen a ngi seen deuxième numéro koor gi ak Ndeye Thiam Saliou tey nag sama invité kenn du ko nattable muy général Diène Gueye bokk ci li nga xamante ni si ci lay yëngu muy politique bi ànd ak ki nga xamante ni si mooy soxna Mame Khary Mbacké bokk ci gouvernement présidentiel yi balaa ñuy xuuse ci waxtaan bi général ma bàyyi la nga nuyoog téléspectateur mourides lay seetaan alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim dañuy sant yalla bu baax si wéro ramadan bi nga xamné suñ borom ko digal ñun diugori yu goor yi ak yu jigen yi muy at mu nekk ñu war ko ci def ben yoon ben weer dellu ci di mu dellu si ñi ci sant bu baaxa baax di ñaan yalla lepp luñ ci wor yalla nako yalla nango di la fay di fay tamit aussi sa technicien ak cameraman yi nga andal di ñaan réew mi jamm yalla nañ am jàmm ci barke koor gi togal ak général nag te wax ci li nga xamanteni ci ci lay yëngu général lan nga def ba dugg ci politique ak lan la sa digënté ak mam Xarim Mbàkke xam nga politique politique dama daw bu mbëkk ko rek bokul won sax su may programme euh, ndax man bima ma gané jamono dama juddu ci famille bo xamné ci né sama papa serigne daara la jangal ma alxuraan bon après ñu jàngal ma métier man tailleur moo nekkoon suma métier dem naa ci fu nekk dem naa ci Mali dem naa ci Burkina dem naa ci fu nekk Sénégal gi ñëpp xam nañ ma ci mais politique dama daw ba mbëkk ko rek ndax nit munul munul jéggi destin am rien ne peut contre la volonté de jël lépp lu yàlla dogal rek loolu day am mais wóor na Serigne Touba politique bokkul man ñëw naa 2007 jóge naa Mali ñibbi si gis ñuy voté ji ma naan leen kaay leen toog fii ma jëndal leen attaay ak meew bu leen voté ñii dañuy taxawaalu rek waaw pour ñu bañ pour ñu bañ dama jàpp ne sax dañuy tardeel seen temps ci ay voté ak yooyu ok léegi nag mais nit ki lépp lu yàlla dogal si moom rek mënu ko fii moom moment bi ñuy dàq maa ngi boobu nag maa ngi teewul maa ngi suivre Sénégal ni muy doxee mais moment bi ñuy dàq président Macky Sall nag li li animé ñëpp animé ma xam nga Sénégal dafa mën a sot ak néewal dooleeg yooyu ma daal di sotle ko nag presque nag ma dem ba virus bi dugg euh, ma vraiment maa dem ba adapté wu ci politique ma àndoon nag nag koo xam ne vraiment tamit c'est un grand politicien mënu ko ñàkk a te moo ma formé formation am laa yore muy Moustapha si Lo ndax boo àndeek moom moom boo àndeek moom da ci temps bu gàtt soo ko suivre da lay def politicien loolu nag moom a def politicien ba mënu ma cee mënu ma cee mënatuma cee génn. maam xar xam nga maam Khary Mbacké maa ngi koy nuyu de passage di ko ñaanal jàmm si koor gi maam Khary dafa ñëw fekk ma si parti bi ndax moom bi mu ñëwee li ma wax du ñu waxtaanee président daf ma defal teraanga ma bëgg ko jàppale man nag fekk na ma 2008 may jàppale président Macky Sall man dama am devoiru tey yow mi sax soo ñëwoon ne damaa bëgg a jàppale président Macky Sall ma xàllal loolu yoon jàppale la parce que je suis man ci le candidat candidature Macky depuis 2008 pour me je ci man réalisation yu nit dama responsabilité mais bu tamit dama ci am responsabilité motax nak maam Mbacké bëgg a président Macky Sall surtout mu deuxième mandat bi ñu doon wut ak ko pour jappalé ko ci programme Sénégal émergent man tamit devoir ci sama yow mi soo ko doon def tey damay ñëw jàppale la bu ko keneen doon def damay ñëw jàppale ko parce que man li ma gëm mooy président Macky Sall su ma candidat la ma fal ko mu nekk suma président ma fal ko war ko protéger képp ku koy jàppale damay ñëw jàppale la loolu moom booleeg maam xarit mais képp ku jàmmaarloog moom pour di ko xeex tamit xamal na si sama kaw ngi njëkk jaar pour dem si président Macky Sall man loolu laa gëm. solo ci loolu laay xuusee tamit li nga xamante ni si mooy defetu Macky fii ci Touba lan moo waral. yéen yi nga xamante ni si yéen a ko représenté fii yéen deful li ko war wala ki nga xamante ni si mooy seen leader moo deful li ko war ba tax Touba mënu fi am ndam. président Macky Sall bi muy ñëw di jël réew mi dafa fekk Touba di màgg ci wàllu élection parce que nag bul bul jàpp ne Touba Touba jamono sëñ Abdou Lahad jamono jamonooy sëñ Fallou Touba googu dafa war a rester bët bët bu set parce que ñooñu def nañ li war a def lépp ba dem mais Touba nag day avancer. parce que yow tey ji lii am ni nga juddoo Touba tay tok tay micro nek ab journaliste di nek jigen juddoo fi yaroo fi loolu amul won jamono yooyu ñu ngi koy dogo gis kon innovation la léegi président Macky Sall nag dafa ñew ci moment bi nga xamni ci si Touba ñu ngi commencé am liberté ci voter commencé nak di choisiral sen bopp waaw di tànn léegi nak mois mois boobu moment boobu le président Macky Sall ñewé kon moment boobu mënul yomb président Macky Sall limu am Touba Touba 34000 voix lañ am et quelques ci élection yi passé dans le département de nous avons 67 000 voix et quelques nous avons gagné ce département 62 000 voix la ñu électoral Touba région ak bu bu bu bu la Touba di compétir ci électoral Comme nous fi ay des président responsabilité politique encadrer il faut que nous soyons politique euh, euh, Manam ñu am fii appareil politique ensuite tamit responsabilité tamit gën a wàcce seen dënn gën modeste gën a wax ak militants yi gën xamal population Touba programme président ensuite nous nga le président de la président di tamit réalisation yi ñu def biir Touba ñoom ñu daal di décentraliser affaire bi yobbu ko ci population yi gëna a sori yi ko gëna soxla ndax ñooñu tamit dañuy voter té buñu gisul benn réalisation bu jëm ci ñom bu élection ñëwé dañuy japp né dañoo wara sanctionner président pour wan ko sen maire fekk président mi ngi indi mais loxo yi ñu koy jaaral tamit peut-être séddale bi ni mu war a demee ndax la voie passée yaa ngi dégg wa Sam di kaas si ay tali té bo ba légui tamit ñu ko ki daaru man gi ma dëkk man 87 bureau de vote mo fa am té ba légui dara jaaru fa ci réalisation réalisation président te teewul président mi ngi dugal ay ay ay réalisation ci biir a reculer pour que ñoom bu a jàppale président. jërëjëf ni que temps yee passé yaa ngi doon a teg lan moo waral wax boobu. waaw xam nga nag man fi mu nii xam nga man fi mu nii man dama nekk dama dama gëm loolu parce que li li am solo mooy. damay tok ba si yàgg may poser question né lan mo tax politicien du retraité man dama d'accordul si ay mak yo xamné depuis Senghor ba légui ñongi ngi régner ci walu pouvoir dañu wara nak nag dem bàyyi jeune yi parce que tamit Sénégal dafa am ay ndaw yo xamné ne dañu jang mokal wara a nak jël sen place ñom tamit doxal wara gérer man je ne suis pas d'accord man général Diène dama koy wax bam lèr yenn mak yi ba légui di occuper yenn fonction yi am nañ def nañ lépp lu ñu waroon def tey jii amuñu lenn lu ñu mën a defaat lu raw li ñu defoon depuis jamonoy Senghor ba léegi mënatul nekk seen at mayetu leen ko seen wéer du leen ko may ensuite tamit jamono avancé na foo xam ne si ne tamit ñoom te jamono ku nekk kam maaseel moom lay gën a méngool ci koo xam ne dépassé na ko loolu mooy li am moo tax man mën a parti bi il faut que nag ñu daal di favoriser jeunes yi jàppale leen pour que tamit ñu mën ko yóbbu parce que man loolu laa gëm man fi mu toll dama gëm ne maay coordinateur département wu Mbacké si Benno Bokk Yaakaar loolu laa gëm te loolu laay xeex te parce que dama gëm Macky Sall di ko jàppale te xam naa ne Macky li muy def ci ponkal yooyu noonu su ko defee si man ma def lu ponkal yi deful. ci loolu laa bëggoon a dugg ak yow sax parce que élection locale yi mi ngi nii di ñëw ndax mën nga po mën nga ñu leeral ne da nga posé candidat yor coordinateur. lay wax ko man suis candidat candidat loolu moom lu leer la kandidaa la ci conseil départemental bi dama koy dama koy dama koy uti yàlla mooy joxe mais dama koy uti te dama lay wax benn wax lu leer. man ki ma jàngal politique muy Moustapha Cissé Lo deuxième moom man may man mooy man man à part Cissé Lo Cissé doomam mën na doon alalam mën na doon léppam waaye politique politique ak lépp politique man maa doon politique gu Cissé man parce que dama parce que man dama gëm ne moom référence la loolu dama ko gëm. fi mu jaar ci politique bi ak si fii malgré que nag ànduñu man soxna am xarit Mbàkke lay àndal mooy sama leader politique mais man si faire wax ne Cissé Lo moo ma jàngal politique moo ma formé te boo xoolee Cissé Lo commerçant boo xam ne si ne quatre boo arrière quatre-vingt-six yokkal ma jaay la la daan wax tey mu dem ba nekk président parlement CEDEAO kooku ku mu nekkul kuy politique nekk jeune te nee doo ko doo ko jël exemplaire amoo ambition waaw loolu laa gëm. waaw moom la moom waaw ñu gis ni que tamit euh, général euh, sa ambition ci politique lan la ak fan nga bëgg a àgg ci politique. xam nga man politique politique dafa dafa metti boo ci nekkee dañuy jàpp ne politique moo lay dundal cent pour cent mais man politique bi ma doon dundal ba nga ni dee naa parce que koo xam ne si ne Macky Sall nommé wu la. bi nga dalee politique ba léegi Macky Sall noonu conseil municipal bi ma nekk man maa xeex au niveau local ba falu mm-hmm. nekk conseil municipal di représenter la jeunesse de Touba au niveau de la mairie. Mm-hmm. loolu si suma combat personnel la mais amul benn fon benn ndomba tànk bu ma Macky Sall jox fayeeku wu ma weer bu ma Macky Sall di jox comprendre nga kon xam nga ne man am naa leneen lu may dunde lu bokkul ak politique mais politique ambition bi ma ci am mooy fexe bay xeexal suma askan ndax boo fekkewul fi ñu royee nag wi buñ lay may mën nañ la may boutique mais da ngay xex ba fekke fu ñuy rayé nak wi buñuy laaj boy booy laaj nga laaj sa cieur pour mëna yobbu sa sa njabot té man Touba moy sama njabot njaboot. <laughs> jëf ci cadre yi général jeun lèr na torop té am na solo ñi ngi lay bàyyi sa cadre tàggatoo. wa di sante wa di len sante tamit vraiment ci taxaway bi vraiment am ngeen am ngeen am ngeen am ngeen am ngeen innovation bu ngeen def di sante aussi sen directeur sama xarit la. malgré que jubóowuñu dañuy mbëkkante rek muy sëñ Mbàkke mais di la sant yow tamit vraiment ak sa caméraman yi di vraiment di rafetlu émission bi di leen ñaanal yal na leen yàlla may jàmm merci beaucoup. jërëjëf général Diène Ndiaye comme ni ngeen ko gisee woon rek tey la woon seen deuxième numéro ci koor gi ak Ndeye Thiam Saliou ngeen koy ànd ak yéen saa su nekk ñoo ngi remercier ki nga xamante ni si mooy suñu invité général Diène Ndiaye yombalal ñu ko lool nag amuñu ci benn problème ñoo ngi leen di jox dig daje ak rendez-vous ba doomee incha allahu rabbi ci beneen numéro jaa ngeen